macha allah. dinañ ñëw foofu ci du mbay mais Ndiaye dafa am benn naturel boo xamante ni yow moom ngay reporter làmb mu neex nit ñi nag Bécaye day nekk ci biir làmb am kuy def fee ci ruq ba Bécaye dugg ci biir micro bi ne eh eh eh yow lee ngay nangam nangam nit ñi xaatu bi daanu loolu man la tax neexaay la loolu loolu ban la. <laughs> loolu ma nii ma toogee nii di toog nii di waxtaan ak ah, ah. waaw bu ko ma amoon it noonu rek laa koy reporté lu ma ko changé. ñu ngay léewtoo waaye déggal li waaye ñu ngay léewtoo dóor na ko naan pare naa ah, ci. waaw kenn di def leneen nga di ko yow eh yow. booy loolu loolu bàyyil kii dafa lii. bi ma jëkkee def reportage jóge làmb ji dem ca rajo ba damaa ñëw naan day saan. maam lees naan ma ban ndeysaan fii Mansour Mbaye abu fi de ah, yow xoolal moo tax ma ne la ngoy na doon ngoy ngoy na topp ngoy sama ko wax boo gis maître boo gis daa jàng wallaay dëgg la oh. damaa ñëw naan ndeysaan bi ñu defee ni Mansour Mbaye ma kii maam lees ko moom ma ah, mu ne ma mais jëliwu ko yow laa jëli indil ma Bécaye Mbaye oh. ni wax na dëgg ma def Bécaye Mbaye def sama reportage waaw kon ñu léewtoo nangam nang bu ma mënee tooñ tooñ caméraman bu ma sene ma wax ko arbitre arbitre bu ma sene arbitre puusal fii nangam nangam yooyu yooyu yooyu yooyu moo naturel ndeysaan ndeysaan waaw et puis bëgg bëgg ko waaw bi ma njëkkee def direct <laughs> naan bi nekk si sama noppi jindi leen ko <laughs> parce que boy bi dafa jël micro preneur de son ba ko ca ndeer ga reng reng ma te mi ngi def direct sa sama nopp bi ma ne ko eh sa ndeer gi nga teg ci sama nopp bi jëndi ko boy daa tiit dara dina tiit kay. parce que musul dégg ku toog ci télé. waaw wax yooyu. sa yoon ne wu ci. wala benn booy bu jóge fële ma xool ko kàkkateem. ñëw toog sama wet bëgg maa jaay. ay mbir bëgg laa jaay ma ne ko eh booy man duma sa morom wala bëgg laa nga ne ko puusal. yaa ngi yooyu Tafa Ndiaye dafa dafa dafa dafa kii woon. waaw stretch dafa dafa sévère. Ah, daf ko daf ko teg ci yoon quoi. waaw waaw dafa dafa waaw loolu mooy télévision classique. man ni nag man télévision télévision classique bi amu fi. non naa changé affaire. dëgg nit ñi bëgg. nit ñi bëgg. nit ñi toog seen kër dégg ma naan eh boy fi. waaw waaw eh, sa bar toogal benn. Eh, bu fi waxaa eh coupé ma micro bi. waaw parce que nit ñi après ils ont